يا خير ديف الأتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد نيو نيو بوك جيري ييب دي سانت سيرين بي باخا باخ الحمد لله رب العالمين إيه، سيرين صوخ بري إيه، بلا ماي يال رك داماي نيو سما كليفه ييغا خاني يال دوغالنا إيه، نيوم لانتي اندانتيل موي نجيبوتو كات شيخ مودو فليل فال te sëñ Fallou fa doon jëwriñ ji ak seex Cheikh Moustapha Fallou waaye santaat yàlla bu baax ndax nit ku baax lay su la bëggee moo lay xëccal boppam boo digg ñu naan yaral xafaaya bi aynal xel bi daa mel ne sëñ soobu daa mel ne loolu moo nu boole ndax sabab bi dafa bàyyi ko sëñ Cheikh Jaxate maa ngi nuyu njëbatu ko sëñ Cheikh Jaxate gépp waaye di siyaar nag sëriñ seex say ñi nga xam yàlla di woon mooy jëwriñ yi te doonoon sama lépp moom itam Eh, sëriñ bi nag jaar-jaar yu bari daanaka jaaral dama ci ci wàllu googu ndax loolu ku tumuranke gu ku la ko indil mujj nag sëñ soogu rek daak saa su nekk ci lay xëy boole na ma fi ak sëñ Cheikh Mbacke mii si moom sëñ Saliou eh, ab liggéey ne moom mooy sa jëwriñ àndal ak moom may àndanteeg sëñ Cheikh foofu ci biir kër gi am néeg bi mu fa doon defarloo ba mu jàgg sëñ Cheikh ne ma kat léegi dootuma ñëw waaye boo xëyee na nga jaar fi man soo wàccee na jaar fi loolu def nan ko maag sëñ maag sëñ Cheikh moomu def nañ ko ci def nañ ko ab liggéey foofu. boobu yow ci ci loolu doon yëngu. waaw ci waaw ci kër gi waaw. waaw ah, ci ci liggéey boobu. loolu ab néeg lañ fa doon defar booba. waaw néeg néeg ab néeg bu fa amoon néegu ñax bu fa amoon. ñu xeddi woon ko doon ko defaraat. Hmm. waaw hmm. nga xëy nii ba maa ko ko mujj tabax. Hmm. boo ñëwee ci kër gi ma nga ci wàllu sa ndeyjoor ca la nekk ca foofu ca kër gi ca ndeyjoor la nekk. Eh, nga xam ne maa ko peinture sama loxo sax maa peinture néeg ak lépp maa ko maa def maa sama loxo fekk na bi am lalu barkel boo xam ne bii lal bi sëñ mag bi moo ko moomoon waaye lal bi daa dema dem ba eh, maam Cheikh moomoon na waaw hmm. maam cheikhante bu mag la su am hmm. yàlla dogal mu jàll jàll ba ci naari waaye ñu lijjanti lijjanti ba jota ca lal ba lal ba nag am yu bari yu ca sëñ bi woo ma jox ma laal ba ma defaraat lal ba ba jóge naa fii dem Ndakaaru fu ma dem ci tëgguur si yeeg ndax lalu xànjar la woon ko ba nga xam ne yàlla dogal naan map tubaarkal la biñ defaree néeg bi nag ñu pinturaat ko defaraat lépp nga xam ne bi sax sëñ bi man la ko fat tudde boo boo waxee ma ah demal ca néeg jaba rek dafa amoon yërmaande ci doomu aadama lool ndax Seex Sooy ba Mbakke coono bi mu jànkonte la woon daanaka ñu bare bari sax daanaka xamuñu ko ndax gis nga li gën a metti ci doomu aadama moo yar yar moo gën a métti lépp rawatina jàngal bëgg laa jàngal nag bëgg laa xamal waaw te bëggu laa dóor bëggu laa kii nga xam ne moom maslaa bu ne dana ko def waaye ku amoon fulla la nag ci itam wàllu gu fam goo xam ne gii mboolem kër ga fu buntu masaa nekk caabi lépp ci kanamam lay nekk waaw amul kenn koo xam ne kenn ñeme gaa ñëw jël caabi nag fi barab te niwul la demal barab sàngam barab sàngam wala barab sàngam barab sàngam loolu mënut a ne moom caabi fi kanam lay nekk waaye booba itam hmm. xam naa ne man yalla ma dimbali ci mom man ci mom eh, ndax yalla ko xëroon ci man ndax muslima olu maa oolu te nga xam yalla yàlla dogal mooy saal bu fi nekk balaa coquillage bi eh, buñ ko bëgge def eh, état cité ci kaw dama ko waxon ma dem Dakar wër ba xam limi yar ak lepp bi ma mu yëkëti loolu jox ma ma wa and ak ñi ne ko état cité jógee Dakar yàlla ne ñu liggéey liggéey bi ba noppi Euh, lañ ci dindi woon ci ay remise ndax boo jëndee lu bari xam nga dañ lay defar remise mm-hmm. te remise bu mën la ko wax te te te te kii bañ ci jëndi woon mm-hmm. di ñeen fukki junni ak juróom mm-hmm. lépp ma def ko ci kayit yi lépp indi bu toogee ba waxtu julli tisbaar jot ma ne ma nan dem ma dem jàkka ji te ñëw ku laa ci man lool la bu masaa jëm jàkka ji dañuy àndante ba tollu guy gi amoon na ñaari néeg yi fan ne man foofu ci xam nga ko mm-hmm. mu ne ma toogal fi néeg ma ma dem jàkka ji te ñëw mm-hmm. bi mu demee ba ñëw nag mm-hmm. man di ko leeral liggéey bi dindi nag ñeent fukki junni yi fi di toon ci liggéey bi eh, di ko ko jox mu ne ma loolu man nga ko téye ñun ñaar rek ci ne bi ma ne ko ah man de sëñ bi <clears throat> am naa lu ma jaaxal lool waaw ne ko ah xanaa sama jëmm ji rek ni mu xeeboo rek ak fi mu ko rek mu ne waaw dogalu bi yàlla foofu jaar nañ foofu jaar nañ si diggante boobu eh, Abdou Maji daana ma wax ne ma man bàyyi jàll ma danga maa jaaxal ma ne ko ah, ma ne ma sëriñ bi léeg-léeg day tàng tàngaroo xam ne wii kenn kees gu mu sax kenn du fa bëgg a nekk kenn du fa bëgg a gis kenn te ma gis yow ku la séenee rek day mel ni nekkoon ci moom lépp dafa dañ waaw mm-hmm. eh, waaye comme moon yërmande ci doomu aadama lool mm-hmm. eh, mos naa wax Abdou Majid fekk na benn naar bu fay ne ku mu ñax amet am ci jamono yi nga xam ne naar yi xeexub naar yi ba mu amee. da doon ab xale ba nga xam ne dafa làq si woon. mu ne ci kër nag ndeysaan te nu a tolloo lool nag. xam nga naar bu waatoo bopp bi day wert. Mm-hmm. <laughs> waaw mu ne mu ne nag Abdou Majid neel neel ja daal ne ko moo Amet mi ñoom ñaar buñu watoo xam nga ku tax ne man moom bootu bopp bi daa tuuti. waaw loolu nag yéemaay googu <laughs> nag waaye da ciy yéem lool. waaw ah, kii kii bopp bi daa tuuti kii bopp bi daa tuuti kii bi bu watoo day wert. Hmm. muy ne ñoom ñaar buy watoo tim nal. te moom te moom naa ko fa nga ko watis la nga xam ne comme gisaat gisaat gis nga saalañ da lay jox ndigal nga. tuwaarkaal la tuwaarkaal waaw waaw tuwaarkaal la mu koy tuwaarkaal waaye loolu waaye yërmaane yi nag moo taxoon loolu am. Hmm. ndax xam nga ku mel ne moom daanaka amut fenn nag ci yërmaande Eh, man mi am na ay fan yoo xam ne lu man ñetti fan yoo xam ne xëyuma hmm. mu ne Balla laaj ko laajal jaba xam ana lu ko cee ñëw hmm. fekk na boobu ma amoon ay picc fii yu xaw bari hmm. am beneen pommade bu ñu ma digal boo xam ne anisiril la ma diw ko ci nag mu xolli kanam gi mu farwee mu xonq cooy ñetti fan nag mënu maa xëy mu ne Balla laaj ko laaj ba xam lu ko cee ñëw ma ne ko am dama amoon garab bu ma ji woon waaye daa xoole woon sama kanam ba mu weex moo tax ma doon néggandiku mu ne nekkoon na ñëw ma gis ko. Hmm. ndeysaan bi mu ñëwee man fekk ko fi muy jàngi alxuraan. Hmm. daal di gees ma ma wàccee ma wàccee kii indi ko muuraay gi moom ana ana loolu la def lii. ma ne ko dafa amoon ab ab pommade bu ma bu ma ci woon boo xam ne bii. Hmm. moom moo ko xool ana ana ana ana ku la ko ana ku la ko digaloon. ab docteur la ko digoon man dafa am ku ma ko wax rek mooy boo liggéey kat loolu bu mu la dalati waaw boo liggéey kat loolu bu mu la dalati. daal di wax anis nekk fa na ma wool docteur ba médecin bi njaareem la wax de njaareem. waaw maa ngi toog fa ma toog rek de. waaw docteur bi ñëw daal di ko ne kii day dafa am benn point bu ñu wax anis moom day rocc ci kii jigéen ñi sax léeg-léeg bu ñu ko kiiyee bu moom lay def nii moom lay def nii moom lay def waaye sëñ bi ku mel ne moom ci yërmaande amut fenn. ku ni moom ci yërmande amul fenn la amul laa wax waaw ci lépp ci wàll yépp nag ak fulla nag aku taalibe ndax beneen bi ci des eh, ak taalibe mënu koo dëpp foofu ci biir kees gi boo toll gamaat ba foofu gamaat ba ne tracé woon nañ fa bâtiment boo xam ne bi ñaar fukki mètre la guddee bi nga xamee ne def nañu fondation bi ba def chainage bi ba noppi ba sëkk ko ba nga xam ne bi fab gi teg ci kaw rek moo ci des sëñ mbakk Mbacke yendu si fa. ba sëñ Abdoulaye ñëw nag daa jaari ci buntu bële tolloog eh, foofee nuyuwukaay boobee. moom fi yendoo ba ci takkusaan nag mu gont di dem. Mm, daal di jaar fa war ki xool bâtiment bi ne ko na ko dindi lépp. daal di ma wane ma ah moom lay loolu ngeen doon def de ba xam naa nga sakk ci pexe rek ndax gannaa moom moom borom kii la moom moom daal nee nañ dindi lépp rek. billaahi barke sëñ bi. nga xam lépp lañ dindi lool. lépp lañ daal di dindi fi saa si. Mm. waaw toj lépp toj seenaas yi. Mm. di sëkk bi ñoom xam nañ ko dan bu sa ñoom ñoom xam nañ xam nañ mm. ñoom ñëpp kay fi gone yeeg daara ja. Eh, daara ja itam eh, alhamdulilah rabbil alamin daara ja itam. Eh, bu ma masaa di baleelu <laughs> sa waa ji <laughs> xam na nga da rëdd aw rëdd taxawal ci ñoom ñëpp nga taxawal ci kenn ku ne sëgg nag def nii say say baaram baaram bi dañuy sësaloo ko. waaye bu si la boo nee bisimilah bu ñu jëltoo bu ñu jëltoo gannaaw képp day mel ne bara du lañ fa lonk rek <laughs> foo foo mën nekk ci kër gi nag yow yaa ko gisul waaye moom mi ngi lay gis ndax dana faw dana toogee diggante boo xam ne bi poqutal boo bi ne bii pokotal bo xali mom moom faaw la seen moom booy dugg dana la seen booy génn faaw da la seen moom loolu dana la seen waaw waye dag ko bu baax ti amone yeen mal la ci wàll googu la gis nga gannaaw bâtiment bobu bu mu jalle euh nim daan def itam xam nga dafa amone sàq mo xane mi mii nak mom la ko mo tudde ndax moy ci ci ñom china nak waye legi magasin daan daanaka li ni ñi wax bo xane bi ndimbal yim daan joxe guddi la ko daan jël waaw borom kër bu mu bëgg a dimbali. saako yi lay indil guddi lañ guddi la daan woo oto bi ñu jël ko yóbbu la ci guddi gi. ñu dema dema dem ba mu yàggal nag mu bëgg ko tabax miire ko def ko bunti def ko kii bu baax. mooy foofu toll ko Moussa Saliou. bi yàlla dogalee mu woo ma nag wax ma ko lool te ñu tàmbali liggéey bi nag. bañ gasee fondation bi ba noppi. moom xale bi moom tabax rek moo des. te tabax bi tabax yi nu tumurànke leen ko nar tumurànke ndax. dafa am benn miir bu ñu def ci diggante fi ñuy tabax ak tokkoor bi tokkoor bi mooy lawaan ca gannaaw nga xam ne moom faw da yenu yanu birig yi wëri yàlla ñëw wala nga seet noo mën a def ba birig yi mën a waaye bunt moom kenn ku bënn foofu ci diggante boobu nga xam ne ni ma mujjoon def mooy dama mujj benn échelle wéer ko ci gii wet jël benn échelle wéer ko ca gee wet waaw nga xam ne kee bu birig kenn day toog ci kaw hmm. kenn day yenu birig jox ko kii kee jox ko kële kii jox ko kii mosoo wàcc si mosoo wàcc si fi nii fi nii rafet waaye moom. buntu moom kenn du ko bënn fenn moom kenn xalaatu ko. Hmm. léegi bi ñu tàmbalee liggéey bi daal di gas bi bi ñu gasee ba noppi fekk na foofu ci naw gi nag moom bu xëyee fi lay toogee. waaye ceeb yi ne ci kanam moom xel xalaatul moom kay yi de xanaa kay yitti ju mag kay moom ngay wax ñëw wax ba mën a jël ci abi yi hmm. waaye man su ma xëy see rek damay daal di agsi bi ma agsee nuyoo daal di nuyoo mu ne ma ana ana ana gis gis gis nga ñooñu fa ne ñoo fa jaara fekk na dafa amoon booba ci tukkoor bi dafa defoon lu demee na ay ndaa yu ndaw ndawaan nii ñoo xam yi ah, dongo yi bu ñu xëyee pep mañ fay def dañuy dem def fa pepp def ndox ndax picc yi naan si bu ñeeman si naan waaw waaw xëy loolu suñ bi loolu ci man loolu boo xamee ne na mas naa xëy doxantu. xool fekku fa pep wala fekku fa ndox. ka nga xam ne moom aay na ko def moom keroog moom coow la yendoo moom keroog moom coow lay yendoo. yàlla da ko na xarandoom ba fa ne woon nag. ñoom ñoo dox ci dugg ci guddi gi dugg ci biir pax moomu ñu gasoon. ay xarandoom ay xarandoom waaw xarandoom baa nga fa waaw. bi ma xëy see nag. mu ne ma ndax ñooñee fa dugg gis nga leen ma ne ko ah, moom da xarandoom ba da melne ñom ñoo doon dox moom ba ba ba bi fu ma ah, mom day mm, xana kon la nga nattoon da ngay dem da ngay dem muñu leen ba xam rek da ngay dem muñu leen ba xam nga xam ñetti fat am nañ ko mënno noo ndax ndax xara ndom bobu waaw di le muñu rek waaw ma ko ñentel mu ne ma ah moom day xam naa gannaaw boo baag gëna nanguwuñoo genn hmm. la nga nattoon kon da ngay dem wañi ca waaw ah, lu mat lu mat mètre ak genn wàll. Hmm. te te nga taxaw ko nag boo buñ koy gas. Hmm. na nga ko taxaw ba bu ca bu ca wenn wenn wenn wenn wenn loru. Hmm. waaw <coughs> waaye ci biir ñetti fan yi bu waxtu julli jotee tusbaar bu muy julli ji. dañuy ànd. bu demee ba ñëw ba ñëw day waraat. waaye wum ci gis ngay lar lari ci naaj bi. danaan la fab koy bu ca ker ga. nga da ngay jël sa lafu mbubb wala nga jëlu carton wala nga jël dara wut bant di ko ko falang kat mi nga naan da ko fab léegi fexe ba fexe ba yóbbu ko sa kër ga waaw noonu daal la amee woon yërmande si dépp nag fànn bépp nag gerte gi ñu mu ñu defar ci tukkur bu foofu ci dafa am beneen beneen beneen mbaar moom fa doon def ca gannaaw bi ñu defaree ba ñu defaree miir yooyu ba noppi gerte gi nag mu di ko defaraat lool ma cee di koy defar di ko maag sëñ kan eh, bi yàlla dogalee mu toll ci yegg nag ma daal ñëw ne ko ah, moom de foofa mel na ne kii na de ah, mu nu mel ma ne ko ah, de man man man de fa laa far mu ne ah ah ah yow xam nga ne fooy far fa far kat. ndeysaan bi ñu dem nekk yóbbu nañu fa lal ak mu toog ci laaj bi di ah moom day waaw ah defe ngeen kii bi gëlee kële suuf daa mel ne daa mel ne tolluwuñ ñaar ci suuf de. ma ma jël sama mètre teg fa nga xam ne ñeenti centimètres lañ rawante ñeenti centimètres. xam ne moom ci xool gi mu ko xool. rek waaw. <laughs> te boo ko datee moom la mu la waxoon mooy. waaw waaw waaw <laughs> mu ne ma man de euh, damaa sawar waaye bu njëkkoon de nañ toll ci sàkket. Hmm. daan nañ ba noppi rek mën nañ ko teppi ndax kémi yi ñàkk yam. kémi yi xam nga kémi yi. kémi yi sàkket yi kémi yi sàkket waaw kémi waaw kémi yi yam. waaye kum mënoon na moom daal wax dëgg yàlla tuwaat kàlla moom ci nag hmm. Euh, li ma leen di wax xam ngeen ko organisation moom kër Sëñ ba la sax la sax man day wax dëgg yàlla xeet teraanga bu ne defal na ma ko. sëñ Maodo Minta dafa danoo nekk ndaamaatu di liggéey. ay xam nga ne kooku moom mi mu retardé xëy kooku. sëñ Maodo Minta. gis nga kër googu ci ndaamaatu biñ koy tabax. Hmm. sëñ Abdoulaye di ko tabax loo. Hmm. daf ko wax ne ko léew xanaa sëñ Abdou Khadir na ma ko léemul pàkk ba daal di sëñ sëñ Abdou Khadir daal di léemu ñu jël suuf sa xëpp ko ci daf ko ci suul ko foofa keroog ban fay dem maay dawal ànd ak sëñ bi bi ñëwee ba taxaw ci tali bi dañu ne benn borno day ngi nii benn nga ne la ñu ne benn nga ne ñeenti borno ñu wane kenn ku rëdd mot uddi wuti morom ja sëñ Modou Bintu daal di sumi ay dàllam daal di sumi dàllam foofu daa dugg door a dugg door a dugg ci ci ci biir ci biir ci biir rëdd bi. ci biir rëdd bi waaw. ñu daal di wëri nag daal di tam wut nu tàmbalee mool ñu wut sëñ bi am garab goo xam ne dafay di jàng ma ne ci ma ne ci gaañi ne ci gaañi ba une heure jot. Hmm. ma ñëw ma ko man dafa alxaar ma damaa bëggoon dem Mbàkke xool xool liggéey ba xam jigéen ñi ba xam fu toll ci añ bi. mu ne ma gars ñu def tàmbali ñu fu toll ma ko ah, mool mool lu bari de mu ah. mun nañ lu bari mu ne ah ah nan di ma seeti ko daal di man maa ngi sol samay dàll waaye ak moom bi ñëwee ba jublu di sëñ bi sumi dàllam. Hmm. te boobu ina boobu digg naa ju cooroon la naa ju sëñ bi. ma hmm. hmm. <laughs> daal man daal sëñ bi ah sëñ bi day daal di mën nga de mën nga ah, baax na de baax na de ma ma jël ay dàllam ak samay dàll téye nu dox tuuti man mënatumaa de ma ne ko sëñ sa dàll yi teg ko sol mu ne ma dee baax na de baax na de. ah li ba mu yàgg nu doxaat tuuxat man xëyatu man daal wax dëgg mënatumaa dem man a man a tegg daal yi fi kanamam <laughs> ne ko sëñ bi sol sëñ bi teegaa sol sa daal yi mu ne mu ne ma nii ni ma Ibrahima man a ah, ma xanaa xamoo ne lu foo fekk lu sedd mm. ci lu tàng lañ ko tibbee sëñ bi da ngay xool di da ngay xool wax jooju rek mm-hmm. nga xam ne frigo fi mu ne nii boo demoon frigo ca moteur ba laaj sa loxo dëgg la dëgg la te nga xool doon ñu galaas yi mu togg moo tax murit murit ngi jiinu am Sëriñ Tuubaa may nu ko ah yaakaar naa ab loofu laay taxutoon de ba mu naan xel bi loxo bi day <laughs> ah. ba mu koy wax de yaakaar naa de ab loofu laay taxutoon booba de sëñ boobu nag ni ma man daal dama gëj a gis sëñ son bu te ko booba noo nga ndaamaatu ñoo ngi waaw noo nga ndaamaatu booba mooy hmm. damaa bëggoon nga ñëw demal ma fa ba xam ba xam kañ laa koy mën a gis. Hmm. moom sëñ moo Aminta waaw moom sëñ Modou Aminta ma daal di ñëw daal di nuyoonteeg moom ni ko sëñ Modou Aminta de mi ngi nuyu de nee day dalaa nam lool te te te te laa gis. Hmm. te bëggoon a xam ba xam eh, bu fi ñu kañ la fi mën a ñëw ndax man laa gis mu ne ma ndax bu ñëw yenee ànd. ka ah, ah, naa bu ko bu ko sàkkoo rek dama ne ko waaw waaw baax ma ne kon bu ñu dee tamit su mën naa ñëw. mu daal ñu wax loolu sëñ bi sëñ bi baax na ndax ci liggéey ba nu nekk ba bëgg a nodd tamit bi na ma ana sa oto ma ne a ma ne doxoon dem daal jiitu ma ñëw ak si ci maam Balla daal di mi tolloog gamaat bi ba na mbaar mu ndaw bu tolloog gamaat bi foofa daal di fa toog Balla maam Balla daal bi daal ak si daal di nuyonte jàmmante jàmmante mu ah, baax na kon ma ñëw kon daal di ñëw kër jóg hmm. mu làqee bunt bi rek nda ne ana ja ja rek la da wax nak ma daal dawul mu ne ma sa ganam nga noonu ak sa keur xolal nak yow nokay fokay dalal ak nokay ganale xam nga Abdou Mbaye dama bolé mom mu ba ñew nak si ma way ko nak ma daal di xam ne dal na yeram yërëmtul ma daal di tamay tank seug bax nak, da ne nun ñepp ya no ngi xalaat serigne bi delu dimbali nu sëriñ bi indi soxna si ñëpp moom it la ñuy xalaat ndax lekkatunu laaxub suba sëriñ bi indi soxna si hmm. booy gan gu ñëw te xiif a xiif demal ca saalu moomi daam danga fa fekk loo maanaam sëriñ bi indi soxna si daa reew soxna ma danga da daan toogub laaxa <laughs> waaw léegi noo ngi siyaare Dan Bousso ñoom noo ngi leen di siyaare ak maam Balla Bousso ñoo eh, ngi leen si Abdou Majid eh, ñoo ngi siyaare dongo ci kër gi yëpp yéen ñaan sambam dolli at dimbali dolli dolli kattan bu baax a baax eh, wax dëgg yàlla de man sama mbégte bég naa bi lool lool bi nga ne ma kër sëñ bu fi ñëw sama xol daa sedd